ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ne kon musiba boobu du kenn ko mën teg ne du kenn rek moo ko تيغي fag yàlla ko bind yàlla moo ko bind kon bu ko tege kon bu ko tegee len rek len rek moy galaju lolo modi galaju lolo loolu modi modi nga muñ muñ nak ne muñ nak binu ko yalla di wax ne binu ko sunu borom di wax moy kérok ba mbir ma ñëwé rek moy kérok ba mbir ma ñëwé rek ca sasa rek ci sasa mu agsee rek nga dello ko nga dello ko yalla sunu borom dal di muñ waye salit waye salit ci façon ya nga mën yépp ci façon yi nga mën yëpp ba tële ba tële ni naa delluwaat ci yàlla ni naa delluwaat ci yàlla loolu du muñ ne loolu du muñ ku ne xam na ni ne ku ne xam na ni dee dee lu metti la lu metti la ndax di dund nit ne ndax di dundak ak nit njaboote ka njaboote ka mu yow suba teel tëdd mu yow suba tëdd

kii dee ndaw la. kii dee di Aline mii ndaw la. mi ngi ci diggu addunaam. mi ngi woon ci diggu addunaam. woy juram mi ngi janoog moom. woy jur am mi ngi janook moom. man la yàlla dogal. man la yàlla dogal. ma tuddi woon ko. ma tuddi woon ko. ñu ngi nii. ñu ngi nii. ñu bare ci ña fekke woon. ñu bare ci ña ko woon. ñu ngi toog. ñu ngi toog. kon kon. yàlla sunu borom. yàlla sunu borom. mooy def la ko soob. mooy def la ko soob. ndimbal li mooy. ndimbal li mooy. muñ. muñ. ak taxawaay. nanu bokk muñ. nee nañu bokk muñ. taxawaay nag. taxawaay nag. yàlla dimbalee na ko. yàlla dimbalee na ko. ca feebar ba ak léegi. ca feebar ba ak léegi. ku ne xam na ni. ku ne xam na ni. mbokk yëpp. mbokk yëpp. mag yëpp. mag ñëpp. sonn nañ ci. sonn nañ ci. ci jéem. ci jéem. yàlla la kenn mënul xëccool. yàlla la kenn mënul xëccool. dem na. dem na. yàlla dimbali na ko. yàlla dimbale na ko. mu am taxawaay. mu am taxawaay. bu rafet bu rafet. ay mbokkam ay mbokkam jële ko Dakar indi ko fi mu dëkk juddoo woon fi defal ka li ñu war defal jullit mooy sang ka sang ka jullee ka ñaanal nan ko toog tey di waxtaan yiw kër mu jëm ci moom nee na kan moo mën a assuré ci ñun ñii toog ni kenn ku nekk ni kenn ku nekk ci yow. daa am taxaw daa am taxaw bu mel nii. waaye yàlla nañu ko yàlla defal kenn xamu ci dara. su ko defee nag su ko defee ko ko yàlla dimbalee. bu ko ko yàlla dimbalee. mu dee ci biiri mbokkam mu dee ci biiri bokkam. ay mbokkam dajaloo. ay mbokkam dajaloo. defar ka defar ka. yàlla. nee ñun ñëpp ñu sant yàlla. metti na metti na. nee waaye ñu sant ci yàlla. te muñ. nee ñee deewee àll te kenn xamul fu ñu leen suul te kenn xamul fu ñu leen suul bare nañu ñee réer ñee réer kenn gisatu leen kenn gisatu leen ba saraxal leen ba saraxal leen ñaanal leen ñaanal leen ñu ay borom mbokk ñu ay borom mbokk pourtant kenn gënu leen pourtant kenn gënu leen gënu nunu gënuñu leen ñu nit waaye yàlla sunu borom bu doxalee nag bu doxalee nag li mu doxale nee nañ ko sant di wax alhamdulilahi rabbil alamin te muñ te muñ nag li ci des nag nee li ci des nag mooy ñaanal mooy ñaanal ñi mu andaloon ñi mu andalon ci mbokk ci mbokk ak ñi ka taxaw ak ñi ka taxaw mbokk yi ka taxaw mbokk yi ka taxaw yëpp ca Dakar ca Dakar ba fi ba fi yeen ñëpp yeen ñëpp mbokk yaa ngi leen di gërëm mbokk yaa ngi leen di gërëm di leen sant di leen sant di ñaan suñu borom di ñaan suñu borom yalla na dëgëral na dëgëral seen taxaway seen taxaway mag ñi de mag ñi de li ñu bëggoon li ñu bëggoon moy njabot gi and moy njabot gi and moy njabot gi déggoo moy njabot gi déggoo moy njabot gi di ben moy njabot gi di ben lu xew ci ben lu xew ci ben nit ñëpp ñëpp yëgandoo ko yëgandoo ko fa ñu nekk fa ñu nekk ànd ci taxaw ànd ci taxaw kon bu loolu amee kon bu loolu amee yéen ñëpp yéen ñëpp ngeen ànd ñëw taxaw ngeen ñëw taxaw lii la mag ñi bëggoon ne lii la mag ñi bëggoon seen way jur seen way jur mi ngi nii toog mi ngi nii toog way juram way juram ak mère Seynabou ak mère Seynabou Gaye bokk ak ndey ak baay bokk ak ak baay mi ngi nii toog mi ngi toog di seen kilifa di seen kilifa doomu Maurice doomu Maurice yi ñu ngi toog ak doomu abibi ñeneen a ngi toog doomu jaaraa ngi nii ñeneen a ngi fi kon kon la mag ñi bëggoon la mag nga sa yéena nga ca mooy ànd bu ànd amee rek bu lépp woyof ku nekk xam na ni feebar bi sonn ngeen ci jaara lay jóge dem ba Dakar la ko yóbbu woon mooy dem yëkkati ka ci yitte ci yitte waaye nag yàlla mooy yëkkati ndax moo tëraloon ndax def na li ko soob yal na yàlla jox leen yal na yàlla jox leen xolu muñ xolu muñ ñun ñëpp nag ñun ñëpp nag ñu ànd ñu ànd gërëm gërëm sunu goro bi sunu goro bi di alhaaji Abdoulaye Ngom ci taxawaayam ci taxawaayam ci anam yëpp ci anam yëpp ci anam yëpp ci anam yëpp ñun ñëpp ñun ñëpp ànd nañu ànd nañu gërëm ka gërëm ka sant ka sant ka wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla borom taxawaay borom taxawaay la lanu yaakaaroon lanu yaakaaroon ba dénk la soxna ba dénk la soxna jaara muy fulla muy sunna muy fulla muy fulla ak taxawaay ak taxawaay ak jàppale ak jàppale yaa ngi ci yaa ngi ci yal na yàlla fay la yiw yal na yàlla fay la yiw lii lii yàlla sunu borom yàlla sunu borom moo nu sant moo nu sant bu ñëwee bu ñëwee ñu taxaw ñu taxaw nan ca war taxawee nan ca war taxawee def ci farata def ci farata def ci sunna def ci sunna def ci lu nu soob def ci nu soob bu soobee yàlla bu soobee yàlla sunu borom ñu defe noonu nee nu defe noonu la ñuy ñaan la ñuy ñaan yal yàlla nangu yal na yàlla nangu di gërëm bu baax di gërëm bu baax imaamu gox bi imaamu gox bi di sëriñ Boubacar Jaxate ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko sant soob na yàlla soob na yàlla gox bii ñu nekk gox bii ñu nekk moo fi nekk imam moo fi nekk imam te ku ne xam na ni te ku nekk xam na ni matal na ko matal na ko nam ko war a matale kon bu fi teewee kon bu fi teewee moo nekk ci sunu biir ñëw ci sunu biir ci jotaay bi jotaay bi daan ko ci gërëm daan ko ci gërëm sant ka gën ko dénkaat gën ko dénkaat njaboot gi fi teew gannaaw bañ ko dénkee Ablaye Ngom ndax moom la yàlla dogal ndax moom la yàlla dogal muy borom xam-xam di imam dëkk ak moom ñu ngi la koy gën a dénk ñu ngi la koy gën a dénk di ñaan yàlla sunu borom yàlla na fi déggaj ku ne xam na ni jamono yi yu mel nii tabarkalla tabarkalla tubaarkàlla xaw na bare xaw na bare su ko defee nag bu ko defee nag lan sa sant ñu ca sant daal mooy fu nu dem mooy fu nu dem wax ya gàtt wax ya gàtt joxante loxo yi joxante loxo yi wàññiku wàññiku démb démb benn kilifa daf benn kilifa daf ma woo ni ma daan la defal tey ni ma daan la defal tey lu nu defalul ñu bare lu nu defalul ñu bare solal ma ay blouse solal ma ay blouse solal ma matériel solal ma matériel ni ma duggal xool ni ma duggal xool ñi feebar ñi feebar fi ñu nekk fi ñu nekk ba ma duggee ba ma duggee gis te lépp gis te lépp visité lépp xool xool ba ma génnee ba ma génnee gis naa ni gis naa ni yi nuy wax yi nuy wax lu am la lu am la lu wóor la lu wóor la lu jar moytu la ne lu jar moytu la nanu war moytu nanu war moytandikoo mooy masque wu mooy masque wu wàññi joxante loxo wàññi joxante loxo bi wàññi saafonte yi wàññi saafonte yi wàññi jataay yi wàññi jataay yi àndaat àndaat ñaan yàlla ñaan yàlla sunu borom bu ko defee yàlla mën na nanu dimbale yàlla nu dimbale yooyu yëpp nag ne yooyu yëpp nag dimbalu sunu borom dimbalu sunu borom rek la moo nu ciy musal yàlla muy musal di sàmm yal na nu yàlla boole musal te sàmm nu tey jii ñuy am lu nekk sunu kanam mu di sunu mbokk alxaaji Dudu Jeen mi ngeen xam a travers tout le pays et au plan international ñu war fa dem taxawi léegi ci yo ci tisbaar ji ay yoon mu dénk nu boppam ci gannaawam la ca war yëpp ñu war ko taxawe ji ñi ngi ñaan sunu borom moom dem ak ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen njëggal defal leen yërmande ñun ñi fi des yal na nu yàlla dimbale jox na lu nu sàmme sunu ngor sàmm sunu diine nee na ñono ñoŋalal nu ñëpp sàmmal nu mbokk gi sàmmal nu biir sàmmal nu biti Ablaye daal gërëm nan la sant nan la gërëm nanu say bokk gërëm sa soxna gërëm xale yi jigéen yeeg yu góor yi ñu jóge Dakar ñom Ablay, ne ñom aisha ñom kabira ngi ni waa Kër Diarra ngi ni we fal ñom ñëpp Cheikh Omar ngi fi won waa Kër Maurice yëpp ngi fi ñom ñëpp gërem nañu ne sant nañu len neen seen and bi yag di len deggo ci gisse ci waxtaan naka mag ñi bëggee woon sant nañ ñëpp allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen ziar di leen balwaax ne waaw ne mi ngi mi ngi jéggalu ñëpp tey balu ak ñëpp tey nuyu ñëpp di leen présenté mbooloo mi àndal ne di leen présenté délégation bi nu àndal Mbastal mi moo suñu mag ndar fi la nekk ne Mbastal mi la nekk yàlla nekkoon ba retraité foofu. ne yàlla nekkoon ba foofu. bi ñëw ñi woo ko mu teeruñu. ne bi ñëw ñu ko nag. yaay sunu njaate gi nga teeruñu. Euh, wan ñu yoon bi. wan ñu itam yoon wi. te matal na ko. te it matal na ko sëkk. ñu fekk tam yeneen soxna yu jàngale fi éducation physique ci ndar. ne fekk fi itam. yeneen soxna yu ci éducation ci ndar. waaw ku mel ni maam bi seen mi ak. sawdatu ak sawdatu taw. ak soxna sawdatu. tabaan. tambaan. ñoom ñoo ñu dalal fii. ne ñoom ñoo dalal. ñu ànd ak euh, Ansoumana Goudiaby. ne Ansoumana Goudiaby mi ñu àndal. nekkoon na proviseur Alioune Fall ca lycée Thiaroye. Alioune Fall ca lycée Thiaroye. Euh, Amadou Gueye mii nekk lycée lycée lycée Seydina Limamou Laye fa la nekk. Euh, ak Abou Fall mii nekk lycée ca lycée Parcelles Assainies. Parcelles Assainies. mooy jàngalekat yi fi teewagum. ne mooy jàngalekat yi fi ñëwagum. waa lycée ba nag. waa lycée ba nag dañoo luyee bus dañu luyee amaana soreetuñu amaana noo ngi ci yoon soreetuñu bu ñu jël kaddu ne bu ni tamit arbitre yi laa seen ñu ñëw toog délégation arbitre yi ne dafa mel ne délégation arbitre ndaxte boo gisee loolu Alioune Fall di doon jàngale éducation physique. ne Alioune dafa daan jàngale éducation physique. di arbitrer basket. di arbitrer basket. di former basket. di former basket. kon ku wax multidimensionnel la woon. kon c'était un homme multidimensionnel. man nag fi mu toll si man. ne fi mu toll si moom. moo day diis trop pour ma wax. day diis lool pour ma wax. ndax bu ma fekkee mu jàngalee. ne su ma ko fekkee mu jàngale. day arrêté cours bi. mu ne xale yi mu ne xale yi lu baax si man kii la lu baax si man rek jëmm ji la lu bon si man man sama bopp ne lu man nag man mii la sama bopp te loolu man kese ne te du kese kilifa yi yëpp ci kilifa yi yëpp ci loolu la ñu wax Aline Fossa mooy daf lay jàpp ba nga yaakaar ne yow yow kese la jàpp ne Aline daal da naa man kese sax la gën a bëgg waaw nan ci ni muy doxalee ci ni muy doxalee kon damay bàyyi proviseur bi nekkoon ak moom wax dëgg yàlla moom mu gën ci sori ci ay kaddu waaw gën a sori ci ay kaddu waaw maa la koy ñaan waaw bismillah salaamaaleykum mbooloo mi ne mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen di leen jàll ci lu ñu bokk. ne di leen jàll nag ci lii nga xam ne ñoo ko bokk. ne Alioune Fall. ne Alioune Fall. bu ñu naree wax ci moom. ne bu ñu waree wax ci moom. fii la ñuy fanaan. ne fi la ñuy yendu fi la ñuy fanaan. parce que Alioune. ne Alioune Fall. depuis bu mu tàmbalee EPS. ne ba mu tàmbalee EPS. ñi nga xam ne ñoo ñu tàggat. ne ñi nga xam ne ñoo ñu tàggat. buñ ko gisee jàkk mu commencé. ne buñ ko gisee mu commencé. dañuy jàpp ne. dañuy jàpp ne. koo xam ne ku yàgg ci mbir mi la. parce que ku bëgg liggéeyam la ku bëgg liggéeyam la. ku bëgg kilifa. ku xam kilifteef. nee ku ba ba rek ku disponible. koo xam ne il est serviable. ci liggéeyam nag. nee ci liggéeyam. amu ci réserve. du xaar ñu ne ko Alioune lii nga war a def. bu jàppee ne lii war naa ko def. dina ci taxaw. ba ngeen fekk ko ci. ba nga fekkee bu ngeen ko fekkulee tamit. Euh, du du du tax mu xaddi. nee du tax mukk mu xaddi. parce que Alioune. nee Alioune Fall. xale yu mu formé. ñu ngi ànd ak ba léegi. Euh, daf leen tàggat. de telle sorte que. xale yi tey. ñu ngi fo ñu ngi constitué benn benn benn association. bu moom Alioune Fall. moo ko tuddee. de guerre. village de guerre. village de guerre bobu village de guerre bobu ay xalé yu mi jangal la ay xalé yu mi jangal ak ay xalé yu mu yag tagat ba pare xale yu mu yàgg tàggat te genn lycée ba te genn lycée delu ci dellu si di liggéeyal lycée ba lepp li nga xamné lepp lo loo lycée bi soxna lako lycée bi soxla na suba ngone suba ngone Alioune Fall mo ci taxaw dana ca taxaw te bu mu ci taxaw te bu ci taxaw du jital xalé yi du jital xalé yi moy jitu ci kanam mooy taxaw ca mbooloo ma ca kanam firnde ben firnde rek la ci tek képp laa ci joxe Euh, ren. man maa nekkoon proviseur am. nee moo nekkoon proviseur am. bu ñu arrêté cours yi ak corona bi. nee bi ñu arrêté cours ndax corona bi. ba yàlla def ñu reprendre ci mois de mois de juin bi. ba yàlla e dañ ko suspendre woon. EPS dañ ko suspendre mais Alioune Fall. ne man. sama sama discipline bokkul. sama discipline bokkul. wante man dama war a liggéey. waaye man dama war a liggéey nag. mu ñëw xool ci li ci ci ba. li nga xam ne war na ko mën a def. xaarul kenn woo ko ci. xaarul kenn comme moromam ñu bari dañoo toog jàpp seen njàmbur rek. mais moom dafa ñëw ne. waaye boppam. jébbal proviseur. ak lycée ba. moo tax. nee moo tax. ba ñuy commencé. ba ñuy commencé. Alioune Fall moo nettoyé école bi yëpp seen mu wecc. o xalem yi wo xale yi nettoyé ko à grande eau né nettoyé ko à grande eau daf ñu né lañ ko jënal raccord dafa ni wutale ma raccord lool rek la soxla lool rek la soxla laaju ñu dërëm laaju ñu dërëm parce que liggéey ba parce que liggéey bi mo ci génné xalissam né mo ci génné mom xalissam diko jox xalé yi diko jox xalé yi bu ma ñëwé né bu ñëwé ba gis loolu ba gis loolu ma ne ko alim ma nga Alioune nak nga mëna a nekk ci lycée nak nga mën nekk ci lycée nag di liggéeyal lycée lycée bi nag di ci def sa alal di def sa alal te yow leer na la lycée bi xale yi seen xaalis mo fi mo fi mo mo moo fi ne donc yow nak nga mën a jël sa xaalis di ko dugal ci xale yi alal mune sama alal alalu lycée bi sama alal sama alal alalu xale yi la donc ku bëgg xale yi nga ni ku bëggam lycée nga ni donc loolu rek jar na euh, royukaay Alioune Fall ñun de am nañ ci yaakaar bu rëy a rëy ne fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee parce que moom am man ci sama bopp am naa yaakaar ne Alioune Fall moo ma gën parce que ci jëf ci ci lu mu def ci lu ma ko xamee ak ci lu ma ko déggal démb buñ koy buñ koy andi inspecteur d'académie bi dafa fekk mu nekk ci atelier ci atelier la nekkoon mais son adjoint secrétaire général moo ko teewaloon mais témoignage buñ fa dégg seede bi nga xam ne ay élève yi nga xam ne moo leen tàggatoon ay élève mu tàggat ñoo ko loolu rek doy na doy na seede te doy nañu tax na ñun ñu am yaakaar ne Alioune Fall mooy doon suñu njaatige ne mooy doon suñu njaatige ci ci ci ci ci ci àjjana fi moo tax vraiment ne moo vraiment ñu ngi mënuma jeexal ne duma gërëm te duma gërëm magam ne magam bi Kabir moom ak ay raqab yu jigéen ne eh, Kabir keroog bu muy feebar Alioune di jógee këram di ñëw di ñëw di dugg si liise liggéey moo ko taxoon jóg te mënoon na toog këram donc dafa doon koo xam ne feebar bi ci liggéeyam la ko daal te loolu yëpp ay misaal la Kabir taxaw na ko taxaw mag taxaw baay taxaw yaay te loolu man mun naa ko seede Kabir maa ngi koy doog a xam ci loolu. mais lu ma gis ci Kabir. waaye lu ma gis ci gis ne xam ne. xam naa seen seen seen seen famille boobu seen famille bu suudee la moo tax vraiment maa ngi leen di bàyyeeg. bàyyeeg suñu borom bàyyeeg suñu borom. mu taxaw leen. mu taxaw leen féete leen. féete leen fu leen Alioune Fall féete woon. bañ a guddal wax ci parce que al parce que Alioune. bu ñuy wax tey ci moom ci mbaaxam. duñ fa dinañ fi fanaan. moo tax vraiment maa ngi leen di gërëm. di leen sant. di ñaan suñu borom eh, wéral wéral cëru ay cëru mag yi fi mag maa ngi leen di nuyu mais mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp te di leen ziar. di teg imaam yi ci seen wàccuwaay. mais ah imaam yi mi ngi leen jox seen waay ak mbooloo mi fi toog yëpp. ak mbooloo mi fi nekk di sant nag di gërëm. nee noo ngi sant tey gërëm. ñun nag suñu délégation mooy commission arbitre

muy Adolphe René Niang ñu def délégation bu takku def délégation bu takku commission bi noonu ngeen koy déggee commission bi noonu ngeen koy déggee bànqaas bu ngeen ci dégg bànqaas ci dégg rek ku koy représenté mu ngi teew ku koy représenté ngi teew ñu ànd ceeg suñu doyen aussi Oumar Dieng Oumar Dieng Oumar ànd ceeg Tafa Cissé ànd ci ak gàmmu ànd ci ak Gammu ak Serigne ak Serigne Tine ak Gaajo ak Gaajo xalifa Khalifa Euh, ak suñu jigéen Monique. suñu jigéen Monique. ak Ablaye Diop. Ablaye Diop. mi nga xam ni guddeeg bëccëg. nee guddeeg bëccëg. du ñu tàggoo ci benn côté. lu ko benn hmm? ak Laxaat suñu président. ak Abdoul Ahad moom mi moom mi nga xam ni moo jiite. nee mi nga xam moo jiite. Euh, Karam Sebi. Karam Sebi. waaw ñoo ngi ñoo ngi sant di gërëm nag. bu baax nee di gërëm ñëpp. li ñu mën a wax nag ci mbokk mi ñu fi indi eh, li ñu mën a wax ci Alioune Fall mi fi dajale dañoo collaborer moom collaboration bu rafet dana ci ak moom collaboration bu rafet ànd ak moom ci taxawaay bu rafet ànd ak moom ci taxawaay bu rafet mu am disponibilité bu ñu toll mu am disponibilité xam ni yàlla indi ko fi mu nekk tout tànk yaa indi ko mu nekk tànk ba yàlla def mu nekk fi arbitre international international di am ci ñu muy suuxat am ñu muy suuxat ay xale yoo xam ne ñu ngi ci biir arbitrage bi yooyu yëpp loxoom jogu ci. loolu lépp loxo Alioune Fall ci. Alioune nag dafa nekkoon nit ku baax. Alioune nekkoon nit ku baax. ñun arbitre yi nag. ñun arbitre nag. tàqale ko wuñoog moom. ak moom. ca ba muy nekk en activité. ca nekk en activité ba muy tëdd ci hôpital ba ni ko yàlla nii moom itam. donc kon nag. ñun la gën a wéetal ñun ñi nga xam ne ñun la doon collaborer. peut-être école bi. ay quelques moments la woon. quelques mais yàlla xam na ni. yàlla xam na nit kii ñu fi indi tey. kii nekkoon na koo xam ni ku ñu amal njariñ. te amoon na place fii ñu nekk. am place it lii ñuy wax. wax. seede bi liñ ciy jël. mooy mooy Kabir bii di. mooy Kabir bii di magam. fekk na gis nañu ñëw nañu hôpital. fekk fa. tey ñoo ngi ñëwaat nii ci li nga xam ni mooy naqar bi ñu boole naqar gi nga xam ne moo ñu ci boole di ko jaale mbooloo mi yëpp di ko jaale waa kër gi yëpp waa kër yëpp parce que ñun alin Alioune mi vraiment ku xajoon ci suñu eh, biir na suñu biir nag yaatu na yaatu na nangu na nangu na fu ñu ko yebal duñ ci am dara lu ñuy naqari vraiment wéetal nañu de trop daal ñoo ngi nag di sant bu baax sant bu baax di wax ni waa Karam c'est de saint yi ñu fi fekk ñoom ñoo ñu fi dalal na parce que ñun am na nu mu doon demee ñoom seen taxawaay fii rek doon na defar lépp mais terewul nit ki nga xam ni dafa nekkoon ci suñu biir rafetal ci bépp côté moo ñu waral déplacement bu nu toll tey ñëw seedeel ay mbokkam ni kii dafa nekkoon ci ñun rafet toogaay rafetaay bu rafet loolu umpul kabir parce que ñun vraiment gis na suñu taxawaay ci côté te ñoo ngi koy féddali encore suñu kóllëre di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare ajana waa Ndar yi aussi ñoo ngi koy rafet ñoo ngi rafetlu seen teewaay parce que biñ ñëwee fekk nañ leen fi te dalal nañ ñu yàkkamtuwuñu xaar nañ ñu ba ñu ñëw ñu waroon a jël kàddu bi ñu seereel ñu ko ni vraiment dañu bëggoon ngeen jël kàddu ci suñu à notre place loolu aussi yëg yëg-yëg rek ak joxe cër mais ñoom lañ fi def démb ak tey mënuñu fi def leneen lu ko gën a rafet ñoo ngi sant yàlla nag yàlla moo ñu joxoon boole ñu yàlla moo jël ñu di leen wax ni na ngeen muñ te ñun ñi fi tase ñi fi ñëw yàlla na yàlla delloowaat leen ci jàmm ñuy ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla xare ajana parce que kat lii ñuy wax lu dëggu la ci suñu bi keneen ku ci nekk fii mënoon nga jël kàddu te doo wax lu ko mooy proviseur ñi muy liggéeyal professeurs yeeg élèves yeeg ku ci mënti ñëw mënoo ñëw doo wax leneen lu weesu li fi nit ñi wax parce que Alioune Fall moo baax vraiment ku xejoon ci suñu biir yàlla moo ko jël étant très jeune moo ko jël étant très jeune parce que ñun ñii di wax ak yéen ci milieu bi la ñu fekk ci milieu bi la ñu fekk. cëre la ñu. cëre ñu nekk ñu nekk nekkaay bu rafet. nekk nekk bu rafet. donc. kon nag am na leen loo xam ni du ñu mën lu dul ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla xare ajana yàlla na ko yàlla defal tawféex ca fa mu nekk di ñaan yàlla aussi teewaay bi ñi fi teew indiw fi jangoro ak jàngoro ji ñu nekkee yàlla nañu ko fi yàlla jëlal te may ñu wër ak wër may ñu tal ak fekkee loolu ci bëggoon sànni au nom de de Saint-Louis au nom de Saint-Louis parce que suñu suñu mbokk yi Dakar ne suñu mbokk yu tedd yi Dakar li ñu wax yëpp dégg nañ ko neen li wax yëpp dégg nañ ko dañ leen di fàttali rek ni da leen fàttali ni Pa Aline mii. suñu rakk la. nee suñu rakk la. suñu jarbaat la suñu jarbaat la. suñu doom la suñu doom la. te fii la fii la defaroo ngay ñëw Dakar te fii la defaroo soogay ñëw Dakar. donc jikko bi ñu wax ci moom. kon jikko yi gis bu rafet nu ngeen ko ba léegi jikko yi rafet yëpp. fii la ko jëlee. nee fii la ko nampé soogay ñëw Dakar. waa Dakar itam nekk ay nit ñu baax. waa Dakar yéen ngeen nekk ay nit ñu baax. parce bi mu jógee fii boo leen ko xataloon. mais bi ngeen ko xataloon ca foofa. mu a koy yaatal. leen borom bi fay. yal na yàlla fayal nu leen. tànk yi ngeen dox ba ñu tànk yi ngeen doxee ba leen ko borom bi fay. yal na leen ko yàlla ko xam. Pape Aline euh, nekk joueur. bi mu nekkee joueur.

loo leen mën a waxante du mën di waxante su match bi jeexee moom mooy moom mooy ñëw ci yow ñëw ci yow ni la grand baal ma àq ah mën na am juum naa mën na am dama juum ñu waxante ñu waxante ñu dalawaat place su ñu jëlaat place su mag ak place su rak ak place su rak te la mës a mel la a mel fu mu la gis jox la cër fu mu la gis jox la cër ñëpp la jox cër ñëpp la jox cër kenn musul dégg ni Pape Alioune wax bi mu nekkee ndar fii am na problème ci basket bi am na problème ci basket bi am na problème ak nit am na problème ak nit yàlla dafa def na ko mu nekk. nit ku baax nekk nit ku baax. nit ku yaru nit ku yaru. nit ku ku respecté. ku respecté nit ku respecté aussi. li muy def itam li muy def. parce que dañ koy xool. dañ kay xool bu waree arbitré. su waree arbitré. ni muy ñëwee ni muy ñëwee. ni muy solo ni muy solo. comment il est correct. comment il est correct. naka lay waxee ak yow naka yow. du loom du du wax ak joueur. wala du wax ak entraîneur ba jàll ba jàll la. donc nit ku bax la donc nit ku bax la yàlla nako borom bi fay yàlla nako yàlla fay yàlla nako yàlla xare ci aljana yi gëna a mag àjjana yi gëna kawe mom na xamna sama relation ak wa sama relation ak wa këram xamna ko parce que bima andé ak Marika équipe nationale bima andé ak Marika mi équipe nationale amna lu mu changer ci sama digënté ak amna lu mu changer ak sama diggante parce que comprendre na ni comprendre na ni Kabir Kabir Vieux Fall Vieux Fall Marika dañu bokkoon basket dañu bokkoon basket mais dañu nek ay frère dana ay frère ak ay sœur ak ay sœur yàlla na gën a dëgëral. yàlla dëgëral nag relation sama ànd ak waa gi sama ànd ak gi. parce que jaara faal ñoo ñoo defandoo màkk. ndax jaara jaara faal sama seexu màkk la man jaara magu mbëri ka maa ngi ko xamee màkk. nee nga jaara magu mbëri makk laa ko xamee. Euh, bi ma ñibbisee. bi ma ñibbisee mbëri ka dëggalal ma ni. jaara sama mag la mbëri ma jaara sama maga. mais yooyu yëpp nag yooyu yëpp nag. mbërika bii moo ko defar ne mbërika moo ko defar parce que man am naa relation ak mbërika relation bu nga xamante ak mbërika relation xam ni ah mbërika de ñeme naa ko man dénk sama kër ñeme naa ko dénk sama kër man parce que ànd nañu équipe nationale ànd na équipe nationale muy comporté woon noo xamante ni muy comporté woon xam ni ba yàlla def ñu gagné ba yàlla dogal ñu gagné

yàlla na leen borom bi fay yàlla na yàlla fayal nu leen Kabir yàlla na yàlla fay Kabir yàlla na yàlla fay sa taxawaay monsieur Ngom ak ay jaara monsieur Ngom ak jaara yàlla na yàlla fay leen mais Pape Aline yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla a wax a waa ndar ñun dëkk duñ ko seede donc yéen aussi gërëm euh, ñun ay xaritu Pape ne ñun ay xaritu Pape bañuy and ay xalé lañ né ba ñuy ànd ay xalé lan lepp lañ defandoo seen kër lepp seen kër defandoo nañ fa lu né demb ma ngi wax ci jakk ji demb ma ngi wax ci jakk ja seen wa kër ay magam seen wa kër ay magam dañu bëggoon paalin ba nga xamni dañu bëggoon paalin ba nga xamni ni ñun lepp lañ ñu nangalo ñun dañu nangalo lepp lepp lañ def nañ nak seen kër lepp def nañ nga seen kër ñu ngi leen koy jaal né ñu leen koy jaal ñun suñu gaay yi ñëpp nañu né gaay yi ñëpp nañu abi ba ngi ni tok Habib Diop mi ngi Habib ak Baye Yoro ak Baye Yoro ak mi ngi ci yoon bi di ñëw ñeneen ñi ci des ñëpp ñeneen ci des ñëpp ñi nekk France ak feneen ñi ngi jokkoo ak ñoom dem ba léegi ku ne am na am na affection ku ne am nga affection ci Paaline man Paaline particulièrement ne particulièrement man dafa am lu mu ak man ne ñun Paaline Paaline këram daan fanaan nan fa ci ndar fanaan nan fa ci ndar fanaan nan ci Dakar fanaan nan ci Dakar Pauline dana wàcc lalam dana wàcc lalam ñun jox ñu ñu jox ñu ñu tëdd ngir bëgg gi mu bëgg seen waa kër yi dañ ko xam ba nga xamante ni ñoom xajal ñu suñu diggante ak kenn xajal kenn dafa am lu nga xamante ni ne Pauline am na loo xam ni man muy anecdote man mi ànd ak benn anecdote nan ma may tuuti rek ma nettali ko ne da koy nettali benn ndaxte bu ñuy jàngee ba def formation ba pare ne bi ne jàngee formation ba pare bi ñu génnee dañu nekk Dakar di déposé suñu ay CV pour wut liggéey. dañu suñu ay CV déposer Dakar pour am ay liggéey. Paalin ñu dem ba nga xam ne affaire bi dëgër na. nee bi affaire bi dëgër ni ma Cheikh xam nga nu ñuy def. Paalin ma Cheikh xam nga nu ñuy da ngay jël sama CV. jëlee sama CV. man ma jël sa CV man ma nga jaar ni ma jaar ni nga jaar ni ma jaar ni. fu foo déposer déposer ma foo déposer man su ma fu ma déposer ma déposer la. yàlla def yàlla def bi ñuy am liggéey bi ñuy am liggéey ci moom la sox ci moom la sox ko un dimanche un dimanche ay booru midi la ma paalin woo téléphone ni ma Cheikh am na fu am na fu am na feeñ na fu feeñ de jël nañ na jël nañ ma jël na ndaxte fii moom suñu fi jëlee kaddu. nee fii bu fi jëlee kaddu. war nañ fi fi jël kaddu. parce que Issa ak Booli rek la. te Issa ak Booli. Issa ak Yaxya ñoom Booli Gueye moo leen jur. Booli Gueye moo leen Booli jur. ñun wàllu kër Issa. wàllu kër Issa ñoom ñoom wàllu wàllu kër Yaxya. wàllu kër Yaxya ngi nii. kaddu gi ñuy jël nag. kaddu gi ñuy jël nag. dafa fekk alaaji Souleymane Demb. alaaji Souleymane Demb. bi ñu yëgee mbir mi. dafa téléphoné. dafa ah nu ni ko dafa tawat. ñu ne dafa tawat. dafa tawat ba hospitalisé. ba hospitalisé. waaye munuñu. waaye munuñu ah yéen de fa nekkul yéen a nga nekkul yéen a parce que ah, parce que ah, seen seen doom ji nelaw. seen doom ji génn àddina. kii seen doom la. kii seen doom la. su ma fa nekkoon it. su fa nekkoon cër bi damay koy jël dama koy jël jox leen jox leen ko. si loolu nu kontaan si loolu. ñu kontaan bi ñuy ñëw nag. bi ñuy ñëw nag démb.

Euh, kii génn àdduna. kii génn àdduna. doomam la doom la si moom. moo ko formé moo ko formé yi. doomam la si moom. parce que ñoom seen ñaari maam yi ñoo bokk. ndey ak baay seen bokk ndey ak baay. loolu tir boobu la. Issa am cër boobu la si Simborika. Simborika mii. donc euh, le monde du basket. le monde du basket. tey ñoo ñàkk. tey yéen a ñàkk. yéen a ñàkk ñoo ngi leen koy jaal. koy jaal. parce que Moustapha sama bàjjan kati sama bàjjan kati mi nga xam ne mooy waajuru Moustapha muy waajuru Moustapha woo na ma yóbbante ma woo na ma yóbbante ma ni ma nang ma ni ma nang ma joxal njaal joxal ma sama njaal sama njaal jotali ko jotali sama njaal jotali ma sama njaal parce que Moustapha su fi nekkoon Moustapha su fi nekkoon su tawatul woon su tawatul woon moom laa yebal mu ñëw taxaw moom laa yebal mu ñëw taxaw mu ñëw taxaw doomam ci génn àddina ñun nag dañoo am mbégte ñun nag am nañ mbégte ndaxte sunu doom yii nga. xam ne doom yi nga xam ne. mooy ñoom Kabir. Kabir ñoom Ablaye Fall. Ablaye Fall ak ñoom euh, Cheikh euh, kii Vieux Fall. Vieux Fall. taxawu nanu. taxawu nanu taxawu waajur. taxawu waajur. ñun amul defuñu si dara defuñu si dara. ñun fekke rek lanu fekke daal lanu am rek lanu lanu lanu yaakaaroon yëpp lanu bëggoon yëpp matal nan matal ngeen ko mu ñoom ak seen ay jigéen ñu ànd ñoo ngi leen di gërëm di leen yal fay yal na yal fay leen ci loolu la woon sax Euh, euh, sunu grand Lamine Gueye ni ma Lamine Gueye ni ma soo demee soo demee na nga jël kaddu jël kaddu nga joxe njaalu joxe njaalu kulli ngayeen kulli ngayeen nga parce que ñun ñoo bokk benn maam bokk benn maam ngi leen di gërëm sëñ Ngom ñoo ngi lay gërëm di la sant yow sunu goro ndax yow sunu goro bu nga xam ni sunu nga boo xam ah ñun de sunu tank bareew fi sunu tànk bareew fi ngir ngir bi nga sunu sunu doom waaw donc si loolu ñong eh, lay gërëm di la sant da nga boot ñëpp da nga boot ñëpp da nga boot ñong lay yalla yalla barké sa njabot barké njabot gi yëpp si loolu ñoo ngi jaal ñëpp di balu ak ñëpp témoigné ñetti mbir bu jëkk bi mooy nee bu jëkk bi mooy relation bi ma amoon ak sama rakk Aline Fall relation bi ma sama ak Aline Fall euh, respect bi ma respect bi ma ak deglu bi ma déglu ak ni ma ak conseil yi ma daan laaj. ak conseil yi ma daan laaj. effectivement. effectivement. li xaritam bi wax dëgg la. Cheikh Chou li nga wax dëgg la de. liggéey bi ñu jëkk am. liggéey bi ñu jëkk am. ñaari CV la ñëw jox ma. ñaari CV la ma jox. ma jox ko benn waaye bu ñu wax si. ma jox ko benn waaye bu ñu naan si. mu ni ma damay jël kenn. mu damay jël kenn. ma ne ko jëlal Cheikh. ma ne ko jëlal Cheikh Chou. bu fekkee ni Papa Alioune xaj na si. su fekkee nga jël. mu ne ma non bu fekkee noonu lay demee. bu fekkee noonu lay demee. bàyyi ma jël leen ñoom ñaar ñëpp. jour bi ñuy xëy altine. jour bi ñuy xëy altine. yoof yoof man ak ñoom ànd maa ñoom ñoo ànd euh, deuxième témoignage mooy arbitre yi yi amul benn bis amul benn bis bi Pape Alioune nekk bi nekk hôpital mu nekk ñaari weer ne mu nekk ñaari weer ak vingt quatre jours ak vingt quatre jours yoo xam ne ni teguma fa sama tànk yoo xam ne teguma sama tànk su ma fa demul le matin su ma demul le matin dama fay dem naa dem le soir parce que xam naa ne moo la sama xam naa mooy sama devoir yàlla suturaal nu yàlla suturaal nu lépp loo xamee ni lépp loo xamee ni waroon nañ ko def waroon nañ ko def amul benn bis boo xamee amul benn bis boo xam ni suñu borom xañ suñu borom xañ nañu xañ nañu moyen moyen yi ñu waroon débloqué yi ñu waroon débloqué pour que pour que mu ñoom ñu mën ko faj ñu mën ko faj arbitre yi fekk nañ ma fa du benn arbitre yi fekk nga ma du benn du ñaar Dieng amul jour bu ma dul woo Dieng amul bis bu ma dul woo bu dul le matin bu dul le matin de le soir de le soir troisième témoignage troisième témoignage mooy école ba mooy école ba avec le proviseur avec le proviseur jour bi Pape allin day daanu. jour bi Pape Aline di daanu. point E la ma fekk. point E la ma fekk. sam papa day def. sam papa day def. bu xëyee suba. bu xëyee suba. kenn ku nekk mu woo kenn ku ne mu woo xool ci loo nekk. xool ci loo nekk. bi ma woowee. bi ma woowee. ma ne a ah papa tey teel nga ma woo de. papa tey teel nga ma woo mu ni ma. mu ni ma. Pape Aline laa waxal. Pape Aline laa waxal. mais. mais. dafa mel na wérul. mel ne wérul. ma ne bàyyil ma ngi lay rappelé kon papa bàyyi ma rappelé di génn. ma génn. jubal euh, caaro yi. jubal caaro yi. bi ma ñëwee maa ngi fekk proviseur. nee maa ngi fekk proviseur. ci bureau ci bureau ma ñëw daal di koy xool. man nga ma ñëw daal xool. mu ne ma il ne voyait pas bien. ma daaw gisu gisu woon bu baax. sama xel. ni ma sama xel. ni ma ni ma. naa ko yóbbu naa koy yóbbu. principal principal. mais puisque hôpital bi ak caaro yi. waaw gannaaw hôpital caaro yi. dafa jege dafa jege. man non. xaaral ma ne non xaar rek ma dem. dugal ko Thiaroye dugal ko Thiaroye bis boobu bis boobu man ak proviseur man ak proviseur ban fa dee jógee ban fa dee jógee timis passé na et depuis ce jour là depuis ce jour là ba démb mu ci ba démb mu ci mujj amul benn bis amul benn bis boo xamee ni boo xamee ni teg naa sama tànk que naa sama tànk hôpital Thiaroye Thiaroye te gisuma ay élèves am te gisuma ay élèves am gisuma ñiy jaay que gisuma ñiy jaay foofu gisuma maire yi jaay gisuma maire yi jaay ñoom ñëpp ñu témoigne ñëpp témoigne li proviseur wax léegi li proviseur wax léegi ci Pali sama xel dal sama xel dal parce que parce que xam ni xam ni il a donné sa vie ne moom il a donné sa vie pour les êtres humains pour les actes humains Té suñu borom lool la laaj te loolu suñu borom lool la laaj suñu borom lool la bëgg suñu borom lool la bëgg lépp lo am nga séddoo lépp loo am nga séddoo ak jaamu Yalla yi jaamu Yalla yi jaamu Yalla yi donc sama xel dal na sama xel dal na ci baalin bi ñu ñëwee ndar tamit bi ñu ñëwee ndar itam avant ñu ñëw ndar avant ñu ñëw ndar sa ñetti témoignage jeex na de waaw bi ma ma finaliser Né te finaliser rek avant ñu ñëw dem avant ñu ñëw dem Euh samay frère samay frère samay cousin samay cousin dañu ñëw hôpital dañu ñëw hôpital. bi ñu ñëwee dañ ma wër. ñeent dañ ma wër. proviseur mi proviseur mi. Ablaye Fall Ablaye Fall. Euh, tonton Guèye. tonton Guèye. Vieux Fall Vieux Fall. ñu taxawuma ne ñu taxawuma. wan ma ni ma wan ma ni ma. ñoom ñoo gën bokk ñoom ñoo gën bokk sax ak Ablaye. ak ah, Pali Pali. avant du départ. ne avant du départ. grand lay mi grand lay ñu woo ko ñu woo munuma munuma Kabir toppatoo loolu li nekk Dakar Ndiaye Kabir yow toppatoo li nekk Dakar rek li nekk Ndar li nekk Ndar effectivement bi ñu ñëwee effectivement def na yàlla def na lépp def ko ci jàmm def ko aw ma seen fay li may def mooy li may def mooy bàyyi leen ak suñu borom bàyyi yal na leen yàlla yal na yàlla fay leen yal na leen yàlla sutural yal na yàlla sutural leen yal na yàlla aar leen jërë ngeen jëf jërë ngeen maa ngi jël kaddu ne maa ngi jël kaddu ci ndigalu ci ndigalu góor gi Kabir Mbaye bee toog góor gi ndax ndax jataay bi bi moom moo fi Habib Fall tey moo fi Alhaji Habib Fall xaritam la xaritam na lool yàgg na lool ñuy seen ànd seen ànd kii doon wax ne kii doon wax mooy taaw bu góor mooy taaw bu góor bu Habib bu Habib te Kabir bee la ko tudde fu ma mësaan gis ne fu mësee gis Habib mi ngi ànd Kabir kon nag kon nag su Habib jagadee Habib munu fi teew. munu fi teew. moom mu teew fi. mais Baye fi. lii yëpp tey. lii moom la ñu waroon laaj ndigal. moom la ñu waroon laaj ndigal. bala ñu def dara. kon nag ñu ngi rafetlu taxawaayam. di euh, di ko masawu. di la masawu. ndax kii fi jóge ndax kii fi jógee. doomam akkan la. sa doom la. ñeneen ñi nga xam ni. nee ñeneen ñi nga xam ñoom ñoo mën waroon jox autorisation. nee ñoo jox autorisation. ñu ñu wax kaddu yi. ñu wax yi. mooy ñi nga xam ni. mooy ñi nga xam ni. ñooy mbokk ndayu. ñooy mbokk ndayu. Euh, Habib. Habib. Habib. Habib. ñii nga xam ne ñoo sant Gaye. nee ñu sant Gaye. ñoom ñooy papa lañ ci xale bi. defe naa papa lañ sax ci xale bi. papa lañ ci xale bi. papa lañ ci te ñoom Umar bi te ñoom Umar Umar mii. presque mooy njaatige. presque mooy njaatige. Habib. Habib ci Dakar ci Dakar. Habib mënulul boppam dara ci Dakar Habib mënulul dara boppam ci Dakar xamul dara ci Dakar waaye su fekkee tumuranke wu fa jarbaatam jarbaatam Vieux Fall Vieux Fall mi nga xam ni mi nga xam ni ci këram la nekk ci këram la nekk mu taxawu ko taxaw boo xam ne taxaw bu rafet taxaw bu mucc ayib la boo xam ne addina bi yëpp seet na ko te loolu te loolu laataa muy dugg ci kër ga taxawaay boobu taxawaay boobu Vieux Vieux ak njabootu jaara njabootu jaara mosuñ jóg ci taxawaay boobu kon nag ñoom kon nag yéen ñoom. nee na ñoom ñoom ñooy kilifa. nee yéenay jotaay bi jotaay kon nag lu ci waay di wax kon lu ci waay rek. war na leen laaj war na leen laaj. permission permission wala autorisation wala autorisation. li ci topp li ci topp. mooy gërëm. mooy gërëm ñi nga xam ni. ñi nga xam ni ñoo jóge dakaar ñoo jóge Dakar. di wala repas Aline di muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci lycée ba. mooy ñi nekk ci lycée ba. proviseurs yi proviseurs yi. professeurs yi professeurs yi. inspection d'académie inspection d'académie. inspection départementale inspection départementale. arbitres yi arbitres yi. seede yi ñu fi jot dégg seede yi ñu fi jot dégg yëpp matale na lool matale na lool seen taxawaay seen taxawaay rafet na rafet na lool rafet na rek lañ mën a daal lu mën a wax nit ñu baax ngeen nit ñu baax ngeen nit ku baax nit ku baax mooy def mooy def bu nekkee nit bu nekkee nit mu dem mu dem di mën di mën ba mënatul ba mënatul nga taxaw ci wetam nga taxaw ci wetam guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg taxaw nag taxaw nag ci biir ci biir ak ci biir ak ci biir ñoom taxawuñu ne yéen taxaw ngeen taxaw ba taxawaay boo xam ne taxawaay boo xam ni jóge na Dakar jóge na Dakar egsi na ba ci Ndar egsi na ba ci Ndar boo Pape Alioune tëddee hôpital ba léegi mu tëddee hôpital ba na yàgg na li ci dem ci alal dem ci alal kenn xamul nu mu toll nu mu toll te ñëpp a jóg te ñëpp a bu fekkoon alal bu doon alal la ordonnance ak taxawaay ak taxawaay mooy tax mooy tax mu des fi mu des fi Pape Alioune ngi toog fii suuf bi mu dem suñu ba day Kabir Kabir mobilisé wu na mobilisé wu na mobilisé famille bi yëpp mais

ñii jóg ci guddi gi ñii jóg ci guddi gi ñii ci fajar gi yal na nekk ay tànk yiw ku fi ñëwoon yal na nga ñëw ak ak ak jàmm nga nekk fii jàmm nga dellu sa kër fekk fa jàmm yal na ko yàlla def ñi ngi gërëm waa Ndar nag suñu kilifa suñu kilifa waa kër Abdoul Majib Diop imaam Bachir a ngi nii dem ba léegi imaam Jaxate ngi nii taawam taawu imaam jaxate taawu imaam jaxate xam naa ni xam naa ni bis bu nekk ci agenda am ci agenda am toog nii waxtu yi waxtu yi bokku ci bokku ci ndax farloom ndax farloom ndax ak it am itteem ak itteem dix heures bi ñu waxoon dix heures bi ñu waxoon fekk nag ci jàkka fekk nag ci jàkka kon nag heure bi kon heure bi waroon na fekk ñu libéré ko waaye xir waaye xir ci mbokk ci mbokk ak ci dëkkaale ci dëkkaale moo ko moo ko toog la nii toog ba léegi imaam jërëjëf imaam jërëjëf yal na yàlla fay yal na yàlla fay la maa ngi gërëm nag maa ngi ñii nga xam ni. ñii nga xam ni ñoo bàyyi ak cër bi ñoo ma bi. ndax man santuma gay. ndax man santuma gay. santuma faal. santuma faal. man ngoom laa sant. man ngoom laa sant. da da ma mayoon seen doom rek. nee dañoo mayoon seen doom rek. ñii may ma seen rak. ñii may ma seen rak may ma seen mag. ñii may seen mag. waaye boobu ba léegi. waaye boobu ba léegi. ñoom. ñoom mosuñu dellu si fii dellu si fii. di gëstu dara di gëstu dara. cër yi ñu ma jox itam cër yi mosuñu dem mosuñu dem ba xalaat xalaat ñu nangu ñu maanaam ni ni ñu dajale fii maanaam ñu dajale fii si kër gi mënoon nañ ko def ci beneen kër ci beneen kër waaye Habib nekk fi Habib nekk fi facile la dem dem bu yàgg facile dem na bu yàgg te ñooñu te ñooñu dañ ma joxoon cër dañ ma joxoon cër ni ma ni ma fii doo goro fii doo fi doom nga fi doom nga fi yi xale yi yaay seen nijaay maa ngi wax léegi ci jàkka ji maa ngi ni Pape Aline bii salut moog salut sama doom bi ak jaar ñoo maase presque ñoo maase presque presque ay maga rak presque ay maga rak lañu Pape Aline du nijaayu salut du nijaayu salut du nijaayu salut du nijaayu salut magam la magam la ndax bi ñuy ñëw ci kër gi ne bi ñuy ñëw ci kër gi Pape mii mi ngi raam Pape mi ngi raam kon nag kon nag maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen sant ci qualité bi ngeen am ci man te qualité bi mosul dellu gannaaw te qualité bi mosul dellu gannaaw maa ngi da maa ngi daaneel daal maa ngi daaneel daal di gërëm di gërëm samay bokk aussi samay bokk parce que man mënuma dara man mënuma dara. su fekkee ni. su fekkee ne ni. lu yëngatu. lu yëngatu ñun su fekkee Ablaye nga fa. su fekkee Ablaye nga fa. dana baax dana baax dana ko taxaw dana ko taxaw. dafa am fu ma wéeru am naa fu ma wéeru. su ma gëstoo su ci wàllu mbokk ci wàllu mbokk. gis insa insa ngom insa ngom. sama rak sama rak. ñu bokk ndey baay ñu bokk ndey ak baay. gis baydi gis baydi. ngom ngom. muy sama doom bàjjen muy sama doom bàjjen. ñoo xam ni ñoo xam ni. ñu ngi may xool may xool rek seen taxawaay yi yal na leen yàlla fay ak mbokk mbokk googu nag dox suñu digganteeg yéen suñu digganteeg yéen Babacar a ngi fi ndox mbokk googu jeex na jeex na Babacar a ngi fi Babacar Fall moom rek la Pape bi bii am doom bu góor am doom bu góor te ami pay boobu moo ko jur kon nag kon nag Pape Aline am na héritier boo xam ne moo tudd moo benn mooy Babacar boobu maamam ak yaayam seen waa kër yëpp seen mbokk yëpp ñëw nañ toog yal na leen yàlla fay am na ñeneen ñu ñëw waa kër Mburis mooy waa kër Seyna Bugay waaw waaw Aïssa mi ngi foon démb euh, Pape euh, Ablaye ngi nii toog te kàddu yëpp rafet na ne kàddu yi rafet na alquran moon wax ni alquran waquulu nee na xusnan bu leen teewee si jataay ak si nit ñi waxante ay wax yu rafet te man lam yaskuri naasa allah te kii dem ay mbaaxam ak rafetam yooyu rek lan fi waxtaan te loolu nag xadis la bu nu sayyiduna sant moo nu wax ni ñi ngeen de seen ay néew tudd leen yu rafet yi ngeen xam loolu nag xadis Seydina Muhammad te daanaka moom la ñuy waxtaane sànq ba tey loolu yëpp nag nan ko def ñaan yàlla leer njéggal yërmande yàlla defal ka fa mu nekk fa mu nekk si barke alquran kon boog ñun liñ ci doon def lépp ak taxaw taxaw nañ ko gox bii ñu nekk nag di bango di ngaleel imaam Boubacar a mooy imaamu gox bi kon moom la ñuy jox cër bi mu def ñaan ñaanal alxaaji Habib yàlla may ko ba mu dee soit si mbooloo ñaanal Pape Aline ñaanal ñii ñëwoon di delluwaat yàlla tegalal seenu jàmm ba nu àgg ak jàmm fekk jàmm imaam Jaxate tek ci fukki l'ikhlas ak ben tek ci falaqi ak nas tëjee ko salatu ala nabi tëjee salatu ala nabi ñu duggal yene yep ci biir ne ñu duggal ci yene yep ñaanal ki fi joge ñaanal bali mi fi joge yal na yalla yërëm ko yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla dugal aljana yal na ko yàlla dugal aljana kii tawat ne bay abi mi tawat yal na yalla safara yal na ko yàlla saafara yal na yalla yëkkati ko yal na ko yàlla te yàlla may ko xolu muñ te yàlla may ko xolu nekk ci feebar nekk ci feebar sa doom génn àddina natt bu diis la yal na yàlla woyofal yal na yàlla woyofalal ñi ñëw tukki ñi ñëw ci jóge tukki ñëw ak tànk yu rafet ak tànk yu rafet yi ngeen doon dox yal na yàlla delloo si leen na yàlla ci jàmm ku ci am tawat ku ci am tawat yal na ko yàlla teg yal na yàlla saafara ku ci am bor ku ci am bor yal na ko yàlla fayal yal na ko yàlla fayal ku ci bëgg a yokku ku ci bëgg yokku yal na ko yàlla defal ñu jàng ñaan auzu billahi minash shaytaan bismillah الحمد لله إياك نعبد اهدنا علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجل ثواب ما قرعناه والنور ما تلوناه من كتابك الكريم هدية واصلة ورحمة متصلة إلى روح عبدك باب علي فعل اللهم أوصل ثواب ذلك إليه وجعله نورا يسعى بين يديه اللهم أكرم به مقامه ويسر به حسابه اللهم ثقل ميزانه بالحسنات وثبت قدميه على الصراط وأسكنه في وسط الجنان بجوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنهم في السفر فاجعل لهم من سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون عليهم السفر وكن و... وأغش أيهم مغواهم اللهم أجمر من وحشاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم أنت أنت الشافي في اللهم أنت اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما